la sëñ Seex Sid Muxtaar xalifatul am lil muridiya di ko siyaare bu di nuyu bokkam yëpp Seex Jëmb Fall mi nga xam ni tey moo taxaw ci buntu kër Seex Ibra Fall bi ak rakkam yëpp ak murid saadixam yëpp di nuyu bu baax nag sëriñ Basiiru Fall mi nga xam ni moom la suñu borom taw féexal bis bii mu bokkoon bokkam yëpp ci ndigalal ñaar ñu tedd ñooñu ma tudd muy kii fi nekkal Serigne Touba ak kii fi nekkal Cheikh Ibra bis bii nga xam ni moom rek la Cheikh Ibra doon wut moo ko taxoon ba lépp gàddaay bàyyi boppam bàyyi ay bokkam mus sa am ngees ci dara lépp mu wan ko ginnaaw ngir doon lim mu am ci bis bi rek muy ngërëmal Sëriñ Tuubaa ngërëm loolu yi nag lépp lu fi baax looloo ko tax a baax ngërëmam lee ko tax a baax muy bis bi nga xam ni mooy fukk juróom-ñaar ci aw gàmmoom Sëriñ Tuubaa gërëm ko jottali ko ngërëmal yàlla ak ngërëmal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ca daaru salaam booba ba tey lépp loo fi gis ngërëm loolu moo ko jur nu fas yéene waxtaan ak yéen ci jëmm jooju di ñaan ci barke xaadim rasool waxtaan si nu fas yéene waxtaan ak yéen yàlla nañ ci jëriñu jëriñu ci sun borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko wa kullan naqus alayka min anbaai rusuli maa nu sabitu bihi fuadak waxtaane ku baax bari na lu muy def ci doomu aadama ci nit ku bëgg lu baax yonent yi sax dañ leen doon waxtaanal ci ñi leen fi jiitu woon ngir ñu jariñu ci tëbbu ci maam Cheikh Fall mooy ki ñu war a waxtaanee ci jamono jiinu nu toll ndax lëj ji jamono ak jafe-jafe yi ci jamono ak muskila yi ci jamono dundaat Seex Ibra ak fàttaliku ko ak waxtaane ko rek moo ko mën a lijjanti ndax jamono yegg na fa nga xam ni daanaka bi Sëñ Tubaay feeñ fi la fekkoon jamono muy lépp lu baax ne fi te baax te ticc bi Sëñ Tubaa di feeñ di woote ci buntu faidatu likku lu mustafidin min baabi tarbiya lépp luñ naan lu baax mi ngi fi te baax te ticc kon faw yàlla yebal fi koo xam ne kii day soppi ab liggéey soppi aw liggéeyin wane weneen doxin mooy tax xam-xam mën a jariñ wërsëg mën a jariñ fan wu gudd mën a jariñ loolu moom fi sëñ moom la fi sëñ Tubaa indi woon te kenn mënu koo xam maam Cheikh Fall xam ko wane ko Cheikh Fall mii du majhul du koo xam ni day doxandéem bu bàyyi ko ci àll ba dugg ci réew mi ba dajeeg sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibra Fall ab senegale la di as gor di ab jullit ay gor jur ko mu feeñ ci réew yoo xam ni xel yàgg na ci ñoom xam yàgg na ci ñoom jiitu yàgg na ci ñoom bu dee ci wetu baayam ci néegi doomi buur yi la bokk dëkk kajoor néeg yi daan falu kajoor di yilif nit ñi di leen duma di leen yónni di leen moom ci la bokk bu dee ci wetu ndeyam njare la dëkk min buyootaati ilmi wa zakaaru aqli wal maarifati bokk ci néegi xam-xam yi ñaari wàllam yëpp di ay mbañi rus musta jaar mukk ci ku sew ba mu feeñee ci askan yooyu muy kajoor ak njaambur nga xam ni xel yàgg na fi xam yàgg na fi teewul it nag dafa jàng jàng alxuraan ba bind ab téere jàng xam-xam lugatal arabiya ba taalif ay téere boobu yi nag mook sëñ tubaa ñoo bokk ab xarnu ñoo maase sëñ bi mage ko li di magem tofoom ci zaahir bi sëñ bi feñé ci néegi xam-xam itam néeg yoo xam kenn mosu leen a yilif moom sëñ Tuubaa waaye mosuñoo yilif kenn di ay jang kat di ay kat yàlla seigne touba itam fi mu feeñe rek fi la fessé wax na ni wëndeeluwuma man khadim rasul ci aduna door am xam-xam fi ma feeñe rek fi la fessé ñima jur rek ñoma teub tëbb tawajjuhi lilazi yuxli lmaqaama bila ijalati li jihaadi shaami diggante askanu mbacké ak musobe ci la sëñ touba feñ xam xam-xam yag ci ñom ak diine ak l'islam bayam bi nga xam ne mooy sëñ mbacké mor ant Sali Cheikh mohammed Bachir nee na wa kaana cheikhul walid aliman faqihan nabilan yartadihi almuslimuuna imaman wa yuxibuhu alumaraau walmuluuku lima taxaqaqu min ilmihi wa waraihi sëñ Tubaa feeñ ñu baax rek wér ko ñu baax rek meññ ko waaye mu teel a ràññi ko lool ba diir bu gàtt bi mu ko amee bokkam yépp ak waajuram yëpp xam nañ ni kii am na lu yàlla def ci moom lu mu mës a def ci kenn waaye ànd ak loolu lépp mu nekk ci ron baayam laa yuqiimu wala yaquumu mës la taxaw mës la taxawal dara lu jël boppam may baayam nekk ci ron waajuram wu góor di ko jàppale ci liggéey bi ba ànd ak baayam fanweeri at moom xaadimu rasool ama shara la feeñ ci mbàkke bawol ji ci wetu gaar bi ama sasin la sëñ Mor Sali génn àdduna ca mbàkke kajoor ginnaaw maraaxil yu bari diggante bi sëñ jaar na fi ci barab yu bari muy ci biir réew mi ci bawol ak ci saalum ba kajoor la bàyyi mujj mbàkke kajoor fa la génn àdduna ginnaaw bu ko sañcee ci ñaari at bi sëñ Mor nelawee Cheikh Mouhamadou Bachir nee na xat bàqiya cheikhu fil wasifati sannatan wa ziyadatan sëñ tubaa des na di jàngale donn daaray baayam at ak uslëf dongee dolliku na ñiy jàng dolliku nañ ngir xam-xam bu bari wi ci moom ak sawar sawar ci jàngale gi ci moom ak dégg gi ci moom ak bëbb gi ci moom ak tëjëliyaat yi ci moom tax ñi ko dégg ñëpp fëx di sàkku ji xam-xam ci moom sëñ bi sawar ci loolu lool ba am jamono mu di leen gàndeeru boppam am lu muy junj am lu mooy misaal waaye nit ñi jëliwuñ ko ci ni ñuy waxe ci wax yi ni jamono waaye booba ànd ak loolu lépp Seexu Faal ngi wër adduna nag moom itam di jàng xam-xam moom it di am lu muy seet di topp boroom xam-xam yi léeg-léeg mu dem fi barab diir bu gàtt mu jóge fa nekk ci xaalatul xalawaan ba yàlla ate sëñ Tubaa am bis mu dajale ña doon jàng fa moom ca Mbàkke Kajoor wax leen ni leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma rabbi ashaabaki bil himmati wala turabbihim bil iqraa'i wa tadrisi ñii fi ñëw yar leen ci yitte te bañ leen a yem yar rek cim jàng ndax jàng defarul nit jàng rek sampul biir yar leen ci woo leen ci buntu faa'idatun li kulli mustafidin min baabi tarbiya yar yaral seeni xol leen yéege leen ci seen ba sa boroom ba sëñ bi waxee ni ku fi jàng indi woon demal seeti ku la jàngal ku bëgg a yegg ci yàlla jaayanteel ak man sëñ ma dami nee na fa zahabal jullu wa baqiyal xullu ña fa nekkoon lañuy bari bari ñi ñëpp ñu ci ëpp dañoo ña ca ëpp dañoo yërëb seeni dàll dem teg seen një ñu néew des fa ña fa des itam desandi nañ fa toogandi nañ fa waaye taxul itam nag ñu xam kii kana ak lii lu mu doon ak kii fu leen jëmee ci waxtu woowu ci la maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina moom itam bàyyi ko Tayba daj boromam boromam delloo ko ci xaadimu rasul ndax li sëñ tubaa wax ni moo ko booleeg rasulullahi loolu yi képp la Seex Ibra Faal wax ni moo ko booleeg sëñ tubaa sëñ tubaa dafa bind ay arab maam Seex Ibra Faal wax ay wolof waaye seen wax ji benn la sëñ tubaa dafa wax ni dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin li samadi Seex Ibra Faal wax ni moom mas nay xibaar ak jébbaloom ba wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe li kulli zamanin waahidun yuqtada bihi moo boole woon rasulullahi ak sëñ Touba moo boole sañ Touba ak Cheikh Ibra Cheikh Ibra di wër nag ki ko yàlla tegtal di wër ba ñëw Mbàkke Kajoor bisub dibéer ci weeru koor xool leen Cheikh ni ko yàlla tànnale nim ko tànnale ak juddu nim ko tànnale aw tur ni ko tànnale ni la ko tànnale mbiram yëpp xoole yaari weer yi nga xam ni ñooy sangi weer yi ñooy weeri borom tubaa wii weer ci la jébbalu wii weer ci lañ ko gërëm sëñ tubaa nee weeru gàmm ak weeru koor ñooy samay weer ñu ne ko bindal mu ni barakataa shahrayni xaadataa liya maxtiira lii wa nafataa axtaaliya seex ba faal ci koor la jébbalu ci gàmm lañ ko gërëm yàgg na lool ci ñu tànnal ko la gën mbir mu mën a doon la ca gën la Seex Ibra Faal moo tax ciw koor la tàmbali aw liggéey ab liggéey ciw gàmm lañ ko gërëm ca Daaru Salaam ba mu dikkee ci sëñ Tuubaa di bisub dibéer toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar niin batt ak yàlla boroomam di ndaw lu ñuul ndongal xuun loo xam ni dereti gërmi ji ci moom alxuraan ji ci moom wilaayatu ci moom ak leer gi ci moom ak pësteef bi ci moom mu jàkkaarloo qadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne touba neena lima na yem ci Ibra fall moy lim ma defal santuma ko ko bam koy def te mus deg kenn ko defal kenn mu roye ko ci mom kon Seex Ibra fagn fañ seigne bi ko yabale neena dey musuma ko digal len ci lii ma def ci barkelu ci man buma tuflé mu far wan suma nacce mu nan luma yàbbi mu sex bu wax ak man yegg suuf su may nuyu di sujjóot di ma raamal di liggéey di ma jox di wuyoo sama sant yooyu yëpp santuma ko ci dara te royewu ko ci kenn ba mu dikkee jàkkaarloo sëriñ bi itam sëriñ bi laaj na ko ni ko analu la tax a jóg Cheikh Ibra Fall ni sëñ Touba damaa bëgg a yegg ci sama borom sëñ Touba nee na keroog su ma doon ab xoll bi danaa sar ba ñëpp dégg sama baat xam naa ne li ma yor di ko jaay gis naa boroom li ma taxoon a ñëw jamono gis waa a jamono danañ ko jariñoo keroog la dégg ku ko wax ni ko damaa bëgg a yegg ci yàlla sëñ tubaa ni ko demal nga jàngi te julli ji te woori te toppi sa boroom maam Seexu Faal ni sëñ tubaa romb naa borom kaggu yi ak seeni téere joxoñub yàlla laa topp bu di ma wërloo koo xam ni liggéeyal koo ma gën a jàng ak julli ak woor ki ma yàlla wax ni naa ko seet ba gis ko jébbal ko sama bopp ku am ngërëmam ñaq yu gën sa ak sa bakkaar ay andi génn ku gërëm nga tàggoog bakkaar dabbis àjjana mucc ci sawara te loolu mënees ko am ci jàng ak juleeg woor ndax xiila ak xawlaani ak taraddadun ak xilaafun des na ko fekk ci ko yori téere waaye des ko fekk ci góoru yàlla sëriñ Basiiru mbàkkam sëñ Tuubaa nee na Cheikh Mouhamadul Bachir nee na sëñ Cheikh Ibra Fall moo ko ni dikkal ma nettali la wala réew ma jëkk a fasanteeg sa baay keroog ba ma jàkkaarloog moom ca Mbàkke Kajoor daal di ko wax ni inna awla ma من الأهل والبيهة قلت له قلت له إني لم يخرجني من بيتي إلى طلب شيخ موسر أجد في حاله نور حق تندفع أمامه ظلمات الخلق وتنجلي به آيات الحق لو لم أجد أحد أحدا من هذه هذه صفته إلى قبره لبلغني صدق نيتي في أملي وإني أبايعك على أن لا أصامل ديار شعرة إنما هم الله ودار الآخرة سيرفال raw na ay maasam te kenn du ko jot bambaa ko seppi mu raw yaaram banaam faal ba mu rawee góor ñu yàgg na bi sëñ tubaa yoree yëfam di ko wane te kenn munul ni mana a mbañum rus munul ni mën a ñett ñii kenn ku ne li ciy tax a jariñu kooka munu koo wax ka koy munu koo munu koo waxe wax boppam lii tax jëkkër jabaram jariñu ci moom munu ko ko waxal boppam lii tax doom mën a jariñ ci waajur waajur munu ko ko waxal boppam lii tax ab taalibe mën a jariñ ci sëriñ ab sëriñ mun ko waxal boppam bàyyi sa bopp jàpp ma liggéeyal jox ma teg ma ca kaw jënd ma yàlla sa boroom askor mun te jàkkaarloog moroomam jaamam di ko ko wax moo tax képp ku mas a am la nga bëgg dangaa am jàmbaar ju mel ni Ibra Fall mu bàyyi ko ca làng ga du ngeen séq dara te doo ko gën ci kenn wet mu joxar bi la fàtte boppam ni jaam ñi gaa waajaa ngi Cheikh Ibra wax sëriñ bi ni ko dara taxumaa génn sama kër di wër adduna lu di seet ku yegg ci yàlla ku ma ca mën a yeggale ni ko kooku nag duma ko làmbatu damay seet mbiram ajidu min aalihi nuura xaqin tandafiu zuma tandafiu amaahu sulamatul xalqi wa tanjili bihi ayatul xaqi ne ko te ki may seet sama borom boole maag moom ni naa ko ba gis ko ànd ak moom liggéeyal ko wane ko joxoñ ko rey sa bopp ci biiram denc sa bopp ci biiram su ma dikkoon àdduna fekk mu dem awma ci moom lu dul bàmmeelam itam li ma bëgg lépp euh, ni ko ki may seet su ma dikkoon àdduna fekk mu dem awma ci moom lu dul bàmmeelam a ngi nii itam mam Cheikh Ibrahima sëñ Touba li ma bëgg lépp danaa ko am ci bàmmeel bobé kon nak ginaaw gis na la ma ngi jaayante ak yow ma ngi lay jox sama bop aduna ak alaaxira inni ubayuka ala an la usaa dunya bi shahratin inma hamillahu wa darul akhirah ne ko adduna mi soxlo soxlawuma fi soxlo soxlawuma fi sax sagaru ba sax mu may toog sama yitte moy aduna ak alaaxira sama yitte moy sama borom. ak alaaxira inma hamillahu wa darul akhirah li de mam Cheikh rafal waxone seigne Touba sama yitte moy yàlla am yalla ma taxajut sama yitte mooy alaaxira Cheikh Ibra neena na fa xaale lii Cheikhul khadim radiyallahu anhu ya Ibrahim anna law lam ajudu min asari sallallahu alayhi wa sallam ila munzaru hadhihi nujum wa sama'i lati tahaqqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yanzuru ilayha la wasiqtu bi anna niyati fihi تاني لي بقلاع الحاج حسب دي بانصابي خط الحسنى اني ابايعك على الامتسال والاجتناب وترحيه الهمه الى الله تبارك وتعالى ولا ترجو مني في دنيا عريشا يذلك يطلبك فضلا أن اهل وداري سنتباني سيخي بلا يودي يا كارناني دي أند naa تقلو danan ànd te danan taqaloo ndax yow kat dangaa am loo nuru muy ne ko man de فسيرة دون رسول الله وراسة كاملة سرا وعلانية دما في فيك القرآن متيري بواتيون تموم فيك في أي أحاديث فيك في امتثال الأوامر فيك في يون الصلاة المستقيم والو لب من خادم رسول سموكو في كورون تكاو صوف واي من صوف سي الله سي رسول الله دوخنا أسمان سي مسنكو تيم دانا خول بديو يي إلا منظروا هذه النجوم والسماء التي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها نرى يويدنا مدوي سك danaa mën a jaar ci kaw biddiw yi mu daan xool ma xool ko jaar ci suuf si asamaan si tiim ma li ma bëgg lépp danaa ko am kon may itam inni ubaayu ko alal imtisaali wali tinaa bi ak Baye Fall yombul nit mën naa doon mu sax te du mën a doon Baye Fall Seex Ibra faal dama fekk la gën a jafe mu doon ko waaye kenn mënta jariñ ci Sëriñ Tuubaa te dangaa roy Seex Ibra Fall Sëriñ Tuubaa ko jaayante na naa ak yow si lu ma la digal da koy def lu ma la tere koy bàyyi وترخيت امه الله تبارك وتعالى يكت سيتي ييب موي سا بوروب موتاخ رفع الامه ترخيت الهمه كي طالب دي امي غرم كي طالب دي امي باجوك اديو موي سيتي دي لنا رك موي سا بوروب جرهجف فال جرهجف فال جرهجف فال وترخيت الهمه جلا سيتي ييب ديف كو موي يالا واي لا سي غرم متي موي lim ko ni wala tarjumi ni fi dunya arishan yardiluka yatlubuka fadlan an ahlin wa daarin ni ko waaye yow ibrahima adduna mii loo fi mën a am ci ay at ak loo fi mën a dund nan ko nangoo dung ci tumuranke akuk doxandéem akuk ñàkk ba ngay dem ci sa borom du la fi may sagaru basang wooy toog du la fi may soxna sooy am du ma la fi may doom jooy jur sëñ Tuubaa daal nangu sëñ Basiiru Mbàkke nee na maa laaj Cheikh Ibra Fall ni ko kon lii nga am foo ko jëlee sa barke bii nga am ak sa mbooloo mii nga am ak lii la yàlla defal nga xam ne koo ne daraja Ibra Fall laa lay indi dana ko nangu fukki loxoom foo ko jëlee mu ne ko faxasi ci moom li ma sukkale woon sa bàyyi keroog ba may jébbalu la waaye lu ma mës a liggéey ma nga al yawmal di ma nekk Cheikh Ibra Fall nag def li jafe lool li mu def jullee ku gën a yomb fuuf li mu def koor ku gën a yomb li mu def ak téeméer yoon ku gën a yomb Cheikh Fall istihbaadu la def di as gor amug juddu sànq ko am xam-xam ba raw fóore yëpp gas ko suul def sa bopp jaam te jaamkat ci kaw sëñ ta bañ la waaye Cheikh Fall rekk a jàkkaarloog as gor ni moom dis gor ni moom soppi boppam jaam def istihbaadu moo fa jëkk saxal xa soxal moo fa xewal saxo saxoo sikar moo fa xewal sëqal kawar daw fa bay di rux-ruxi ba mu demee Mbàkke Kajoor daf ni na ba mu demee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara yi di suur mu daal di yalwaani di woor boo rek liggéey di ko joxe lu Bamba wax mu daal di naaw fuuréem jure ja sant saaw naan ko da ngay dellu gannaaw jàngil mu tëb ba mu demee Mbàkke Bawal daf ni na waa kër gi Bawal may soq tey rooti di wal boo rek liggéey di ko joxe boole di liggéey ci yaramam ak di yàlla fu mu toll lu mu am jox sañ tubaa lam noonu sëñ tubaa soxlawuma dara ci àdduna ak alaaxira yow rek laa soxla loolu da ko koo wax ba noppi teg ko ci kanamam fàttewu ko naxasaarewu di ko wéyaale di ko doxaale loolu yi da koo teg ci fa gën a sori ci xolam lam teg sëñ tubaa moom Seex Ibra da koo denc fa gën a sori ci xolam waxam jooju waxtu rek jëmm la doon taxaw ci kanamam def motivation am Seex Ibra daja ci ki nawle ñoo xam ne ñi moo leen gënub juddu fuuf raw leen fuuf nangoo sopp ko ab jaam ci seen kanam di raamal sëñ tubaa ñu di ko ree di dawal sëñ tubaa ñu di ko ree di root guddi ñu di ko ree kenn ku ne jàpp ni boo fi yàggee da nga fekkee toroxteem moog sëñ tubaa ci noonu moog sëñ tubaa ci noonu ba muy ñetti at sëñ tubaa woo na ko ba tey gërëm ko Seex Ibra bañ woo na ko ba yàgg Seex ba tey wàcce ko Seex Ibra bañ wax na ko ni ko Ibra Faal sa borom nee na nga wax ma lii nga bëgg saay ko ko mu daal di jóg ni ko yow wax na ko ko ba tey ba am bis mu ni ko Ibra Faal yàlla gërëm na la rasulullahi gërëm na la sallallahu alayhi wa sallam gërëm naa la Ibra Faal adduna dafa bon moo tax amul njariñ waaye may naa la adduna loo fi xool te bëgg ko may may naa la ko yaay boroom loo xool ci adduna lu mu doon boo ko soppee may naa la loolu yaay boroom sëñ Tuubaa ni Ibra Faal di ko ah sëñ Bamba yàllaa ngi lay laaj lu ma bëgg ba tey yàlla sa borom mi ngi lay laaj man Ibra faal lu ma bëgg ba tey nee ko yow wax nga ma ko waxati nga ma ko waxati nga ma ko man yow rek laa bëgg ni ko sëñ Bamba àdduna mii nga ma wax ni ma lu ma fi gis su ma ko bëggee yaay borom sama bët bi ba mu tegg ko ci yow yow rekk laa bëgg a gis yow rek laa bëgg a am yow rek laa bëgg a moom waaye yàlla defal na ko bëggam ga ngërëm lii mu ko gërëm ci bis bu tedd bii keroog ba mu koy gërëm dafa wax moom sëriñ Tuubaa ni cey mën a Ibra Fall شيء من ابن فال ابن فال دي دو سابلو كيف كو فكيون جامونو عبد الله ابن ابي قحافه كوكو نك موي ابو بكر موي سيدنا ابو بكر سيد توبا جار سي تورم ابو بكر ليمو تك سي يارام موي بايو جان دي رك ناخ يونتبي صلى الله عليه وسلم مبولم فك بن يمو يورون نيوم نيب منو عائشه كيب مو سي مسا جيك سي لخوم موتاخ بايو نان كو ابو بكر بايو جان بي واي عبد الله ابن ابي قحافه لتو سيد توبا رسول ابرفال ميدي بصفلو كفكي جاموني عبد الله ابن ابي خرافه اك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سانغام واي ابرفال ميسخ دي نيم توبي بابك توبي وكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نخ بابك دا فجيلون اب تانكم تيكي تانك يونتي بي بوي جولي موي جولي بوي وور موي وور لو موي ديف موتاخ ني نكو الثاني في الخاري مو ما دون دوزيام في الاسلام ابرفال مي جولي لو ناكو مو باج ما وور لوكو مو باج ما توبلوكو بروم مو باج bayina bopam ngir man bàyyi ay bokkam ngir man bàyyi borom nit waaye lu yàgg-yàgg dana xam ni li yàlla yoroon ak rasulaay teg nañ ko sama loxo yii te dinaa ko teg ci loxo Ibra Fall daal di koy wàcce yabal ko ndar dama wax ni ndar googu sëriñ tubaa yabal seex Ibra am na lu ci sëñ tubaa jubloo wane ndax sëñ bi jërëjëf bàkki balla sëñ tubaa day li ëpp am kum mës a gërëm dalay yabal ca say bokk ya nga bàyyi koo woon wala mu yabal la ci beneen àll nga toj ko gor ko waaye keroog ba mu gërëmee Seexur Faal nag da koo yabal weti ndar ni ko demal ndar ana luy xikma ci loolu sëñ Tuubaa ku mas a gërëm da lay yabal say bokk wala mu yabal ci beneen réew waaye moom ndar la ko yabal te booba ndar mooy aasibatul ifriqiya ci jamonoy mustamiruun francis mooy capitale coloniale mooy nekk capitale de l' Afrique occidentale française gouverneur général fa la dëkk ملاتر يفرن دك تباب يفرن دك نار يفرن دك مودكم نخاس اي اجلس نفا اي شابل نفا اي كنائس نفا اي جمع نفا سرين سي نفا سرين سي نفا موي مارشي مونديال بو خامن بي ديفيرسيتي دفا ام مولوم بوكول بوستيف نفا يونو مورد فين سي ريوم ادم فيني سي كاوغي فين سي اي انديجين شيخ برفال دك ام غيرم موك نيمو اندالون sëñ tubaa ni ko yow demal ndar booba sëñ baa ngi jublu kon wane ca marché boobu nga xam ne fa la lépp nekk muy marché publicité sëñ tubaa di wane griffam wane markam wane jëfam wane mbiram ku liggéey produit da nga ciy sakk échantillon Cheikh Rafal di sant yoobu yoonu murit di sant yoobu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yebal ko ndar sëñ Cheikh Mbacké maa ngi lay siyaar baax Fall sëñ Cheikh fekk fa ay sëriñ fekk fa ay sërif fekk fa ay naar fekk fa ay catholique fekk fa ay mulâtre moom Cheikh Ibra fekk fa ay juma fekk fa ay jàkka te booba yoonu murid yëggagul ndar Cheikh Ibra Fall di wane sëñ Bamba nag di ko wane ci jikkoom ja di ko wane ci jëmmam ja di ko wane ci comportement ndax islaam yàlla nee na ci alquran ci barab yu baree bari nee na ak baax ak diine du rukkoo ak sujjóot rek xibla gune nga jublu fa وهي الإسلام دين ودولة ونظام حياة وشريعة وعقيدة إسلام كومبورتمان إسلام مود دو فيل إسلام ليجيستاسيون لا إسلام كونفيكسيون لا إسلام جفين لا أك واخين أك دوخين إسلام ميلو لا مان شيخ رفال نيك ندار تي نخاسوم نيت ньоญي نك دي وري سيغ توبا دي وري سيغ توبا دي جاي سيغ توبا توبا بي ديكو خول دي ام سي موم استيم كاريزم بي سي موم personnalité bi ci mom élégance bi ci mom finesse bi ci mom allure bi ci mom teggini ci mom ñor gi ci mom way gi ci mom djub gi ci mom Cheikh Rafal diko ko wane ba ñëpp am ci mom estime leg leg buy dox ci mbedum André Le Bon mi tuba bi dañuy sopp diko xol nar yi diko xol sërif yi di ko xool sëriñ si ku ne bëgg amanté ak mom kene ku ne bëgg xamanté ak mom lolu moy Baye Fall Baye Fall kumu rombu xet ga ca mooma la koy wax teggin yaa la koy wax leer gaa la koy wax yitteema la koy wax waaye nag bu ñu defee ni pàkkuti bii mënees na koo defar ba mu yem ak wurus Baay Faal wurus la Seex Faal wurus la ci loolu la nekk ndar ba seen wir ñëpp loolu moo tax biñ jàppee sañ Tubaa mu dem ndar doomu ndar yi am ci sëñ Tubaa yërmande am ci moom cofeel nangoo def ay pétition booba fekk na ndawal sëñ tubaa jiitu na leen ci ñi jëkk a gëm sëñ tubaa ci ay doomu ndar ci ay jàngkati tubaab ci ay dissimulateur Seex Faal la ñu gis moo leen séduire mu nekk ci noonu ba sañ tubaa demee ci géej gi fekk tubaab yi bëgg ko lool soxla njariñam lool mu doon ay liggéeykat sañ fa ay daayira sañ fa ay daara am fa ay kër am fa ay tool di def maraîchage mbayum noor di ko jaay si ndar saxal correspondance sama sëñ Touba di léggéey di ko yót doon jëmm ju ñaw a ñaw a ñaw a ñaw foofu fii nga xam ne sëñ tubaa dem na ci géej gi Seex Rafal des ndar Seex Rafal liggéey na fii liggéeyal sëñ tubaa liggéey boo xam ni ci di ko jox ab yónnee aw ñam ku yónnee lu ne ku yónnee ndawal guñu muusal di am di di jaxasoog tubaab yi di soutenir ay action politique nekk un leader d'opinion ba tubaab yi jaar ci moom xam ni sëñ tubaab mi n'aspire que la paix et liberté de son peuple ci loolu sax ba sañ tubaab ñibbisi bi mu ñibbisee mu topp raay bi moom Seex Ibra jógee ndar ñëw ndànd sëñ tubaab dégg kuy kuy kuy sikkar ma nga naan may sa bii nga kumba faal génn góor ya bu laa génn góor ya bu laay faal mbaate góor xamula sëñ tubaab dégg wax ji daal di muuñ daal ni Ibra Faal bari bay waaye génn góor yëpp la ahmadou mii moo ko moom waaye ñu bokk te ndaxatoo ay goj sëñ tubaab Cheikh Ibra c'est comme le simple le Christ et le simple tubaab yi nee nañu dangay ngay boole naan rek mbaa nga boole tuur sëñ tubaab fay na ko nag xolam sedd na guy ndax waxuma la gii kër muy yoonu murit waaye alamul islam bépp kër yi dina yëpp tey jii ñëpp a ngi am ku ñu teg ca kaw di toog fi suuf ñëpp a ngi am ku ñuy déglu ñu ngi joxe addiya ñu ngi liggéey di joxe ñu ngi rafet njort ci te loolu lépp Cheikh Ibra Fall rek a na nu yàlla taas ci barkeem waaye nag njabootam gi mu jëwuñ ko mu réer soppi wuñu dara maam Cheikh Rafaal ay doomam jeex na ay doomam ñoo fi jëkk a jeex doomi sëñ Touba waaye naka jëkk ba mu noppee gis sëñ Touba 1927 itam dafa daal di def loo xam ne lii booba yombul ndaxte booba bu ber woon mu metti lool waaye dafa ñu jàkk Cheikh Moussa Mbacké taawub sañ Touba bi muy ndawal ñeen fukki at ñeen batt ak yàlla boroomam سيغ مو سيغ سيغ رفال تيكو لوخو نيكو مصطفى لو ما سا ليغيل سا باي ديفنا كو ادي يني كونا في يو مصطفى دوخنا لا سان بوب تي مصطفى مان فما يني كو كوني كتي فاغي غور دوخنا لا سان بوب نيكو مصطفى لو دوفي وون لو وتي وون نا جوف جيبلو سي موم جاين تيك موم اندك موم غونغا كو نيتي ات فك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باي في شيخ مصطفى دوم جو باخ جي اك ركام يا ني ني دان سيغ مور موسى مباكي اندك موم براي بي سيكي توبا لو ما سا جوخني رك شيخ رفال تيك نا سي بكانم سيغ توبا تيك نكام la joxoon ñëpp Cheikh Ibra Fall joxoon ko ay doomam joxoon ko ay rakkam joxoon ko taalibe yi mujj na mag ñëpp fa tegoon sëñ Tuubaa fa lañ teex Cheikh Ibra di déglu ay isaaraatam ak i waxam di ko mokku di sàkkoo gisanteeg moom di déglu ay waaraateem di jaruñ ci moom loolu tam waa kër ñu soppiwuñu ko ñenn ñu ne mën nañoo soppi ko waaye li fi woon Cheikh ba tey mi ngi fi rek joxe ndigal liggéey joxe jàpp seeru jàpp leneen loo dégg Baay Faal yi newuñ ci kon nag moom lañ ko gërëme woon yal nañ ñu tàbbal ci biir ngërëmam li ci barke xaadim rasool seex seex Mamadul Basiiru Faal mii nga xam ne moom la yàlla teg bis bii ci loxoom mu ànd kook bokkam yu baax yi ak magam yi ak rakkam yi ak mboolem ku fi nekkal sëñ Tuubaa yàlla na yàgg ci kanamu liggéey bii yàgg doon jëwriñam yàgg koo ànd ak moom ci njabootu ak njabootu Seex Ibra Faal gépp ak njabootu sëñ Tuubaa gépp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu parce que ñii ka yar doful bu fekken du kookee murit yëpp réer ñëwam geenu jàngal si jóot ak ku fi naw sa xam-xam ba kontar mbiram dañuy xam ne loo wax lu rëy rëy wérul xasida gi bi ma koy woy daa aman ko wax ci rajo Sénégal kontar su jóot Baye Dame wax ci ab band bu am solo ma def ci xasida gii jëbal ko Baye Dame Ndiaye rahmatullahi alayhi Baye Dame Ndiaye dem na ba ñëw ci man ne ma sa way wa da lañ ko tënkoon lépp dal na ko waxoon te ay wax yu yaatu la moo tax ma ne Cheikh re mooy alxuraan yi ñi bëgg a jàng sëriñ bi ñi bëgg a jàng yoon wi nañ jàng Cheikh Ibra ku déglu fii Boussra tàmbalee ak fi mu jaar ba agsi fi mu agsi da nga xam ne dañ ko war a jàng Cheikh Ibra warees na koo jàng ci am loo bëgg warees na koo jàng ci am fulel dëgg wuti ko warees na koo jàng ci dëggu warees na koo jàng ci woy warees na koo jàng ci nangu dogalub yàlla wares na ko jàng ci nangu wares na ko jàng ci woyof yoy yep la mam Cheikh ibrahim Fall bole won motax Cheikh Samba Diarra mbay ne ko Cheikh ibrahim raw na ak sam te ken duko jog Bamba ko bi mu raw yaram bi nam Fall noonu la lolou demee def naa benn émission ci lamb Fall Serigne mourou Ami Fall xey woluma ma tiit lool bi ma ci sama yaay Cheikh mu ma ñong ma ne ko am ne ma Serigne bari ci bir ma ñu fekk Serigne bi tok mbolo wër ko mune ma ñëw nga mané mana ko waaw mu ne la woolu ma ko motax ma ñëw fal mune tek ak dalam goge nga xam ci maam la koy royé dal lol teey lol taxam xam la muy wax ma tiit sama yaram waangi sotti ko aw ñak mu ci ba yag ne ma biig da la mané ko waaw fal yalla ci barke rek wat ne tek ab ne ma ah la lol de mané alhamdullilah rabbil alamin do a xam ci lima ne mune ma waaw lima lay sante modi di dama la deglu te foofee nga toog la nga doon wax maa fa war a na toog di ko wax kon jàppal na man nga ko doon waxal keroog xaw na maa nakkase yàlla xam na ko ndax mbégte mu daal di dindi ci loxoom téeméeri gërëm ak ñeent fukk jox ma ma ne ko ñaan jéem a gënal mu ne ma xam nga ne yoruma ko moom rek ma ne ko déedéet mu ne ma dama la ko jox téye ko yàlla xam na ne bés boobee ca ëllëg sa la ñu dewaali sa xaalis bi téeméer ba ma joxoon ba tey mi ngeen man loolu def nañ koog moom te booba ca li ma ciy mos la rek ci ndax jotaay bu yàgg bi ca biir émission ba dama caa wax ne gis naa fi gaa yu tuddoo sëriñ bi di former ay gaa yu réere sëñ bi ba jël sagar yi li mbóot di màjjaal di xaslu sëñ bi ci seeni laxwaal def tànki neen tey dëkkee wëndeelu bàyyi faal gi nekkul di mel ni loolu dem wan say xoox dinaa na kay tux naa bàmbalaa gëm sa bopp ngay nax foo dégg ñaa koy fas yéene caa dem ba noppi naa man Cheikh Bamba laa gëm gëmoo ko bul fen nde yow xamoo ko te loolu ngay laaj na roomu gis ko Baay Faal gi nekkul ci sol sagar yi di dox di dóoroo ko tas xumbeen yi Baay Faal gi nekkul ci ñaaw làmmiñ newul ci soowoo di saaga tey giñ newul ci toxpoon di naan di màndi tasaare xiiwal yi Bàmba indi di saamanaay def ci biir murit yi defin wilee tax ñu yàpp murit yi Baay Faal dadaa xëy di dem ca tool ba di dàkk sax far xelum sëriñ ba Baay Faal dadaa xëy ne caww rooti tey not bakkan baaka jébbalooti du wër di màjjal di yóbbu néegam du am jotu góor saxoo na lam gëm ma wax la Baay Faal yu fonk Bàmba maam Cerno Mbàkke ak Sëriñ Masàmba Seex Ibra Saar ak ci xàlle yoon wii nan jéem a roy ñii ta xam defin wi maam Seex Ibra Faal sax keroog fa gébbu leeral na yoon wii tasaare fépp ca mooma at am la mbër ma soonu maam Maodo Malick deful lu juunu fonk na lislaam ragal na yàlla soppoon na yónneen ku maandu woon la na yàlla fay ko jëfam ci diine te xiir njabootam ci bokk yéene Cheikh Ibra Fall ne li tax ñu ñëw fi du maasale yoon jiyaar xewul fi la tax ñu ñëw mooy rasulullahi salaa wa sallama alayhi laahu la yàlla doon bañ yónneen bi bañ ko loolee la muy bañ bindeef yi def ko danan falan biddaa tëral fi sunna ku jaar ci loolu yi dee tàbbi janna loo gis ci yoon wi te diina bañ ko xamal ne loolee naafiqe def ko naafiq yaa ngi mbubboo ci diine seytaane dar leen di jël di yónni dugub akub jëmb la def misaalam te nee na jëmb ak naafiq ñoo yem jëmb ci ab tool lu taaru taaru mu jëm nga day ñaaw ba ñëpp waaru naafiq boo gis ci toolu diine lu jëf ja rëy rëy du taaru yéene day jéem a yàqal ña jiite tool ba kañaan rëyëg nayay booloo ca xol ba ku xapp ab jëmb ci toolu suuna dalal xelam boroom de dootu sonn lolo waral tay mam Cheikh Rafal ñëw gàddu bi léeram naafeq yi daw diine sëriñ bi nañ leen ci xellu génnul ci l'islam kum réer na déglu lolo la wax sëriñ Mourou Amin Fall xëy woolu Cheikh Ibra dafa am fu nekkon am lu mu yene won nit ñi am lu mu gis la alquran jàngale ci Makka Cheikh Ibra jàngale ko ci mbacke yàlla nañ ko yàlla fayal liggéeyal na l'islam jariñal na yàlla bindef yi ku ñu war a jàng la nañ leen si bàyyi xel jamono laaj na ñu jàngat Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kon noon ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu ba Bassirou Fall Cokke mi nga xam ne moo yore woon organisation màggal bi ak bokkam yi mu ko àndal yëpp ñëpp ànd moom lang moom nee na sant na ñëpp.